baal ma ak baal naa la ak yal na ñu yàlla boole baal ndax jàmm na dàkk lu yàlla sàkk yàlla nañ ko buur bi yàlla defal am du ñàkk mës naa la tooñ waay na nga ma ko jéggal baal ma ak baal naa ak yal na ñu yàlla boole baal ak Diagne. waaw. ban koor gi. ban koor gi. ban koor. ah man fàtte woon daal di tey damaa waroon Pape Rabi ba tey fàtte woon daal damaa waroon. damaa xiif. damay fàtte koor gi. koor gi pare saa yi daal. du ma jàpp nag waaye pare saa yi damay caarit loo daal. ndax yenn saa yi sama côté bi mu waroon mooy nekk ci naan tukku tukku tukku tukku tukku tukku tukku tukku ci côté bii rek mooy ci biir quoi fii. côté bii quoi côté bii moom day jékki-jékki rek xëy

ruube ak kii ak simol simol am na ci biir xanaa. lépp këf daw. kon àdduna moo nekk ci biir kon. lépp ba am kay këf daw ci biir. xam naa nag lu la gën a sonal yow. Hmm. sa radiateur bi moom manqué ndox quoi. waaw daa bougé. Hmm. radiateur bi bougé xam naa ñàkkul day seet naa la. ci biir ah. xam naa loolu la ah xaaral iris bi dem. Ba eh, Ndiaye. waaw daal moom la bëggoon a laaj quoi. la bëgg a laajati. mais man damaa seetlu quoi. waaw su ma xëyee dama lay gis nga daaj ci gàll bi gàncax ba dem fenn. def nga sama enquête. nga ne job. ah kay loolu nga war a wax Paa Diagne tey damay enquête léegi boo liggéey loolu ñëw ci loolu Paa Diagne tey damay enquête ba xam amoo liggéey rek mu wax la déedéet liggéey man maa retraité booy mën naa laa benn affaire. waaw laaj ma. yow sa baay lu muy liggéey. sa baay. business man la woon quoi. sama ko enquêteur la woon nekkul business man la enquêteur. déedéet sama ko enquêteur la woon nangul nangul su ma la waxee rek nangul. sa baay business man bàyyi doom ja xam naa li wax ah xam nga ni wax naa dëgg <laughs> sa bàyyi àgg dér la woon laajam da ngaa bëgg a laaj mais da nga xëy toog amoo job amoo dara mais kaa wutal la liggéey ah, ah. man nekkul liggéey moo jot liggéey bii xam nga ko du xuma secret de Jaya mbak am ah, aku nga ko def. ah dama laa xamal chaque jour suba laa ci nga business laay mau moo tax mau nga maa leeral ma cak, ni ak beneen aku cap cap. dama ko waxul waxul ne soo ko peegri nga jadi a. waaw cak. bëgg ma ca jangan cak? cap. caga. loolu ngay bañ quoi. yaa ma jox dama ko Di loxo yi mën naa war naa jëriñ waaw a laajee mooy dugub rek. waaw bëgg naa. bëgg nga ana sa benn gaan Babacar. Hmm. ko moo yor boulangerie bi bu mag. Hmm. waaw ah man de nee ko nee ko bu nee bëgg naa. xoolal bul am lu mel. Eh. boulangerie bi bul am dara. salaamaaleykum. eh Diagne Diagne Diagne kontaan de ça va. Wala, yang yandere yamma da bin jan yamma korontere ba kala parce que yankili sate to comment la fomo le son so je nyanda talo to sensa parce que yamma lo da makandri yankili na na be kana borol di, tap tap tap tap tap ngo bana pre je nda na na tonta na ku ina man nda ta parce ora fomo so fa parce que madame jan tilo fo na fo fo na candidat do man tilo ba da makandri ba ya je din ko ndoke ñun kol bo ñam ndala sate ñu taw ni mu no fu fo ya fala tane ci ba malo malo iblis gari la kontri ñe bari ndala sate taw ko mu mo fa fa la la mo fa fa la im ka ko lo lo de lo lo de ni ba ki bi de lo sama de lo sin ni kari sin no kari sin no kari im ka ko mara ñu ko fo bol ñam mara bi eh, jess sen ko sikin ñu jaxal tele jaxalu adunta jaxalo fa adunta parce que mara mi jam il faut que nata non ne ma koy na sako ko do ndanku ina ku na mani do il faut silo fana njam non da yan kamira famira auto fana sotana famira julo fondira julo ba ya en ko fana bidu en ko to Call up, call up, call up, call up, call up. ani sunkar baako sunkar baakoro xam naa sunkar baakoro ci bambar mooy damay miir maa koy ah? maa koy sakot wax nga dëgg am douze baa parce que je dois m'en aller parce que c'est c'est père là sa tête là c'est très dur il est comme un cimetière ah non bañal kii daal kii de boy bi maa ko luyee fii hmm. maa ko luyee douze mais moom bu ñëw du ci ci kakaaw ak sang day ñëw bëgg la wax loo wax la ba nga dox té am nga fi dé ba def fi ma na wu ci kon lé job nak job wax na la nanguna ndax mburu diisu pero xanaa ratal gos ga jëw ha jaw gis nga boobu ay ay bagage moo si nekk quoi ah kon baax bagage si xanaa xam man képp koo mës dig bëgg dëgg pëlis too fari jooy ay affaire naa gis baax ba tegal ko dégg mulai mas rang muy gaaw jaas yow bu noo bàyyi saa yoo oh, fekkee di wuru rek di wax loo ay club maa ngi nga club club club sang ma yep yëpp ah xoolal ngoon dee nga waaw ngon ngon yëkk si tuba yëkk si tuba ji xam naa du ma rek la rek ndax jàmm dàkk lu yàlla sàkk yàlla na ko bi yàlla defal am naa du ñàkk mës naa la tooñ waaye na nga ma ko jéggal yenn saay saytaane man ma ma def